raison mën nañ la ni situation réew mi li fi fekk yaakaaruñ ko woon mën nañ mën nañ joxe mille raisons mais loolu duñ la ko donc bu réew demee ba egg situation bu mel noonu ça devient extrêmement difficile naka la ñu def pour génn ci parce que loolu mooy moo war a mooy li war a lijjanti mais monsieur le ministre euh, nangu nga ne situation bi ñu fi fekk mën na expliquer loolu wala yow da nga am yeneen explication ci ah non situation bi ñu fi fekk c'est une c'est une est très bonne la preuve du ko wax mais Fadou xam nga dafa loo nga xam ne jarul am xam-xam pour ñu wax la ko. su ma ñëwee leb la junni nga lebal ma ma dellu si leb la ñaari junni nga lebal ma si leb la fukki junni nga lebal ma c'est parce que boo ko waxee boo ko lu yaa ngi may fay. du dëgg. Sénégal fu defee nii ñëpp ñëw financement yi ñëw te li ñuy wax bor état dafay leb état ci bor lay dund. ñëppay leb. ñëpp même les États-Unis réew bu lebul looy def li am solo mooy la ngay leb na nga ko def fu jub mm-hmm. bi ñuy defar BRT bi dañ ko doon critiquer bi ñuy defar TER bi dañ ko doon critiquer daf may fàttali rek jamono ba ñu doon defar les Parcelles Assainies boobu Mamadou Diop nekkaguloon maire de Dakar nekk ministre de l'urbanisme et des transports ak la Banque mondiale mu defar les Parcelles Assainies un journaliste bu ñu doon wax Mame Less Dia à l'époque qui avait le journal le, euh, le politicien titré ko Mamadou Diop le goudronneur du désert ni dem fekk dem fële ci àll ba di fa goudron mais loolu boo amul woon tey fu Sénégal jëm autoroute à péage bi buñ ko defarul woon da nga daan jóge Thiès pour egsi Rufisque vingt minutes mais boo egsi Rufisque bala nga egsi Dakar tu deux heures. Mm-hmm. c' est comme sax donc leb. loolu moom dëgg la réew day leb. mais soo lebee na ko def fu baax. donc situation bi ñu bi ñu dund tey fekku maanaam ñi yor pouvoir bi tey fekkuñu fi une situation bu amul yoon. apportant ah, ñoom loolu lañ wax de ba suba sax dañoo nara def conférence de presse pour wane loolu. c' est bien c' est bien mais dama ne conférence de presse ak point de presse ak leneen ak leneen a ci yem. réew dafa am lu muy doxee man dafa am loo nga xam ne bu ma gisee sax ñoom ñu doon ko def dama koy dama koy apprécier parce que gis naa ni lu bëree bëri bëri lu ñu naan wax naan bu ñu ñëwee def ko euh, rompre avec les partenaires du Sénégal euh, maanaam Fonds monétaire international banque mondiale les institutions de Bretton Woods di daan nañ dégg Ousmane Sonko ni mu leen doon critiquer. c'est ça ensuite créer une monnaie national tout ça heureusement que yooyu yëpp génn nañ ci man bi ma gisee ñu génn ci j'ai applaudi suñu relation avec la France même chose suñu relation avec les États-Unis même chose j'applaudis des deux mains mais amul benn situation bu ñu fekk. parce que war a expliquer li ñuy dund. non parce que lu tax ñuy wut kilifa mooy bu difficulté amee nga régler ko mais bu fekkee ne yaa ngi ñëpp a yem bu problème amee nga taxaw ni problème am na tàll say loxo lu ñu lay doyee mais kilifa dañ koy wut parce que àddina mooy doxee noonu. muy kër muy dëkk muy fa ngay liggéeyee muy état muy fu nekk dañ la fal pour ngay. faj ay soxla dañ la fal pour ngay ay difficulté am nga di ko régler ku mënul régler ay difficulté jarul ngay jiite ñoom situation bu réew mi nekk rek jàpp naa ne waroon dañ ko xam avant ñu ñëw au pouvoir parce que réew mi amul secret addina bi foofu la tollu tey parce que boo duggoon da ngay xam. mais am na les réalités du pouvoir aussi am na yoo xam ne euh, monsieur le ministre nangu nga ne doo ko xam lu dul boo duggee ci biir. mais loolu ay détails rek lay doon. ok mais sur les fondamentaux amul amul amul dara lu maintenant euh, mën nga nag justifier certaines choses mais fondamentaux yi moom ñëpp xam nañ état bi nii lay deme ñëpp xam nañ ni budget bi tant de milliards la nii la ñu def pour recouvrer ko avant Macky Sall de dem le budget avait été à hauteur de vingt quatre pour cent vingt quatre la ca des mi ngi fi donc amul benn explication bu ñu mën a joxe question wu gestion ak orientation maintenant am na loo nga xam jàpp naa ne bokk na ci li li li li li bloqué bi mi tey mm. mooy kilifa yu bëri nay nekk directeur nay nekk ministre koo ci wax du jël responsabilité def dara tant que référé wul au premier ministre. loolu it jàpp naa ne c'est une ah, yëf day traîner kon. day traîner. d'accord kenn ñemewul la defar sa waay moom sama sët moom xamul fu mu dugal gars yi mais <laughs> fexe na ba kenn du sëqat moom. day dàqee. <laughs> non téye na ko bu mu dëgër kenn du sëqat <laughs> mais loolu. répercussion mooy un pays qui est bloqué okay. et c'est ce que nous vivons actuellement mmh. voilà reddition des comptes bi ci jamono yi législative yi itam gisoo ci benn gàkk-gàkk waaw xam nga euh, olof yi dañu tombee waral gaaf ndax mën na am ni looloo tax mais mën na am ni loolu taxul mais boo xoolee euh, information yi ñuy jot yi ngay gis ci presque bi bokk léeg mu am loo nga xam ni tu te la question mais lan moo waral lii hmm. parce que boo gisee ñi ñu wax ni par exemple dañ leen a tere ñu génn bien que gis naa Cheikh Oumar Anne nee na y a pas moom kenn mënu ko teree génn bon xëy na moom moo xam ni mu koy defee. Mhm. mais liste bi nga xam ne publié nañ ko bu dee ni am na bu dee ni dëgg la xaw ma ci je parle avec des réserves dama ngi liste bi ñu publié ci presse bi. Mhm. nga gis ci ko mel ni Gabriel Kane mais tu te demandes kii lu mu jotee ak état. nan la doon gérer. lan la doon gérer ba ñu ba ñu war ko laaj moom Adji Sarr la doon gérer. Mhm. xamalu ma ko leneen. donc yu mel noonu li muy yàq moo ëpp li muy defar. Mhm. te dañuy wax ne un corps attaqué se défend nit ki boo ko toppee di ko dóor di ko dóor di ko dóor muy arrière. Mhm. arrière am boobu mën na am du ragal bul xam naka lay réagir te mënoo nekk au pouvoir ubbi ay front partout. encore fois moi ce que je dis je le dis dans l'intérêt du gouvernement et dans l'intérêt du Sénégal réew da da woote dal da ngay dalal dalal xelu nit ñi parce que tey man xam naa ay nit yoo nga xam ni dañ doon ñëw pour investir au Sénégal mais bu ñu la réew mi day tàkk réew mi dara am fi le pays en ruine ñu dem seen yoon bari na ay même ay sénégalais yoo nga xam ne waroon nañ investir wala daan nañ investir au Sénégal dañ ko bàyyi. parce que moo tax yëf yi nekkaat mais absolument yow tamit yow mi président wala ngay premier wala ngay ministre da nga war a dalal xelu nit ñi recréer espoir mais doo dalal xelu nit ci dara amu fi doo dalal xelu nit ñi ñu ngi ci banqueroute maanaam dërëm amatul ci réew mi boo ko defee sénégal yi nekk ci biir réew mi sax yor seen xaalis waroon ko investir duñ ko investir ku yoroon junni ni xaaral ma may faatu 1000 francs yi danaan ah attention comme premier ministre nee na wala président nee na réew mi dara amatu fi kat sama junni bi naa ko denc.